ziar kontaanee jox cër mbokk àdduna ziar kontaanee jox cër mbokk internet c'est le TV kon am mbokkum réew mi ci seen chaîne la chaîne de la vérité seen chronique comme ni ñu koy defalee saa su ne ci actualité réew mi balaa noo sori nag maa ngi leen di ñaan ngeen gën di abonné tey partage surtout nag vidéo bii may def ne ma bëgg ngeen partager ko ndax man konaa waxuma sama xol mooy wax te lépp lu ngeen si dégré rek xam ne xëy na te dérapage la wala yooyu ngeen muñal ma ko fi ma toll la quoi sama xol neexul fan yii yëpp nag maa ngi koy muñ donc maa ngi leen wax ne am ñaari junni yoo maye mayal ku la neex mais soo bëggee dégg-dégg jàppal c'est le bon TV te rëccuwuma man lu ma doon ubbee chaîne bi tuddee ko chaîne u dëgg parce que vraiment vraiment Sénégal bëri nañ ay caaxaan maa ngi ñaan nag vidéo bi képp ku ko seetaan dama lay ñaan nga partage maa ngi leen koy ñaan ci jëmmi rasulillahi vidéo bi na partage ba dem ci Makhtar Gueye ba dem ci euh, xawma Cheikh xawma ndaw mi jàpp Ousmane Sonko wax ko lu ñaaw li tax man fan yii yëpp ma tëdd mënumaa nelaw te ni ma bëggee li ma bëgg nit wax ko waxuñu ko li ma bëgg ñu tontoo ko tontoowuñu ko waxuma ay waxu Ousmane Sonko ak Jean-Luc loolu leer na mais manipulation bi ak jàpp Ousmane Sonko bëgg koo def maanaam di ko wax lu leen neex di ko toñ di ko toroxal di ko di ko tuumaal loolu loolu loolu laa xamul fan lañ ko teg léegi nag jàngat boobu laa bëgg def. ngeen ñaanal ma ma am maîtrise wax limay wax te duma wax ben kaddu gu ñaaw ndax vraiment li nek sama xel nii ak sama xol bi bu ma ko mu ñaaw suma defé comme ñom ni ñi def parce que dama tok mu xalaat mani man pourquoi li quoi xam nga man légui dal alhamdullilah xaaral ma ma ma gën concentré wu ngir mëna waxtaan ak yeen parce que tamit euh, am na gars yi bëgg tonto rek yow da ngay wacc sa and te bëgguma génn ci contexte bu ma nekk moy di wax samay dëgg ci yar ak ci teggin gaay dama dégg bi Ousmane bi Jean-Luc Mélenchon ñëwé ci réew mi ba tay tambalé won nañ ko sax ci ki fi ñëwoon sét ci euh, Bassirou Diomaye Fay ñu tuumal ko koy tuumal ab gor jigen ba légui ni Jean-Luc ñëw fi Ousmane Sonko yëkëti kaddu yo xamni aduna bi aduna bi yépp la la wax particulièrement der bu ñu ñëpp ñoo ci fier chef ñi nga xamante ni ñoom la joxar bi baaraam muy góor jigéen ñi ak ak ak les occidentaux muy la France ba tax na journaliste français chaîne français yëpp journaliste français yë française yëpp presse française yëpp dañoo jóg xëy suba di naqarlu di tiit ci kàddu yi Ousmane Sonko yëkkati jëmale ko ci ñoom jëmale ko ci Macron waaye jëmale ko ci lobby bi nga xam ne mooy LGBT. góor jigéen yëpp dañoo jaaxle góor jigéen yëpp dañoo dañoo maanaam dañoo xam ni ils ne sont pas. les bienvenus au Sénégal waaye ki fi nek di xéxal né day xéxal di xéx li nga xam mom moy gor jigen mom gor jigen ni dañoo mer mu and ak ñom mer lu mu musul gis ci aduna moy wa Jamra mam Makhtar gay bu Jamra gurjigeni, jigen yi xey suba ci aduna bi yépp di nakarlu kaddu Ousmane Sonko wax ci ñakkat mëna def ak gor jigen ak tamit Sénégal gor manam taxaw catégoriquement ne dem dundulen seeni dundu yeen ngeen bayang ñun ñu dund suñu dund te góor jigen bokkul suñu dund discours bu clair et net ba dem ba ne bu jare guerre ak yeen sax pour ngeen bàyyi ñun ñu dund suñu dund te góor jigen bokk ci yeen ngeen dund bu jare guerre utiliser mot bo xamanteni ni manam ñepp xam nañ ni lool lay tek man damay laaj mam Matar geey bu Jamra man nag musuma la gem te ñima yag suivre xam nañ ko yag na taxaw di wax ni man geewuma sa xex Macky Sall nga andal système bi nga bok te moo waral heure bu askan bi di dee ñuy rey askan bi kenn du la dégg te pour man xeex ay valeur xeex pour man bakkanu doomu aadama moo ci war a jiitu ndax balaa ngay aar nit ñi ci góor jigéen aaral leen seen bakkan ba nguuru àdduna bi du leen lor rey leen waaye bu ñuy rey askan bi kenn du la dégg bu ñuy toroxal askan bi kenn du la dégg bu dund gi di cher kenn du la dégg te yow nee nga yow da xeexal askan woowu ngir ñu baña a dooni góor jigéen askan woowu bala ñoo mën a tal góor jigéen dañuy lekk dañuy naan dañuy ne ci jàmm dañuy am nguur gu leen may jàmm bañ leen a faat kon man musuma gëm Mame Makhtar Gueye billahi wallahi wa tallahi léegi nag damay ñëw ci dooma xaram bi nga xamante ni non il faut ma utiliser moo boobu parce que dooma xaraam la xaw ma nan Cheikh Ndaw xaw ma Cheikh Tidiane Ndaw la xaw ma dooma xaraam boobu damay ñëw ci moom ngeen baal ma baat bi mais kooku dooma xaram la billahi wallahi wa tallahi parce que kàddu yu ñaaw yi ku ko mën a yëkkati ba pare nag mu leer na li ngay wax ay tuuma la mais kii est-ce que wér na maanaam dama ko toog di koy déglu j'ai des pincements au cœur sama xol bi day bëgg a dagg ginnaaw bi ma laajee mam maxtar Gueye lu tax ngay xeex góor jigéen yi Ousmane ko wax lu góor jigéen yëpp mer yow nga and ak gor jigen ni mer te yow gor jigen ni buñ mer da ngay kontan gor jigen ni buñ kontan na nga mer tay lan motax nga andando gor jigen ni mer ak ñi défendre intérêt France fim toll ni discours Sonko bi ñi rek la nakari moy ñi défendre intérêt France ak ñi nga xamni ñoy ay gor jigen te yow ma Makhtar Gueye gor jigen ni yow lepp luñu fuñ musona jaar ni nga jaar na le tey nag góor jigéen ñi ànd xëy suba mer presse yëpp presse France yëpp génn di dal ci ko Ousmane Sonko naqarlu li kàddu yi wax yow tamit nga ànd ak ñoom di naqarlu te yow da ngaa waroon a maye tànd biir ndax discours bi Ousmane Sonko yëkkati ci kanamu Jean-Luc Mélenchon amul ci histoire Sénégal benn leader politique bu mës a jàkkaarloo tubaab yi wax leen ko si wàllu góor jigéen ci wàllu armée ci wàllu souveraineté ci wàllu lépp amul amul dans l'histoire de ce pays li ñuy dund suñuy responsabilité la yam leen si seen dund te lépp lu ñuy séq ak yéen nawleeg lay doon wax lu leer nañña nañña naññ mel ni midi képp kuy nit tey njàccaar tey défendre góor jigéen yi da ngaa tiit da ngaa mer yow nag ngar yow ànd contraire ànd ak góor jigéen mer te yow nee nga góor jigéen yi ngay xeex xoolaatal li ngay xeex léegi nag man li ma jàngat mooy dafa am ñoo xam ni ñoom ñooy activé ñii di génn di wax mooy ñi nga xam ne ay opposant la ñu te ñeme wunoo wax terrain bi il faut mu am ñu ne leen fi nekkal ak tubaab yi nga xam ne fi mu toll ni xamuñu seen destin ak Sénégal fu mu toll ñooñu it seen ñi leen fi nekkal yor seen intérêt ñooñu il faut ñuy jug di wax kon yéen seen kaadu problème mais ki nga xam ne nag moo yëkkati ay kaddu yu ñaaw kaddu yu tuuti ba pare di woote woo diine dinañ la tontu. Mame Makhtar tamit déggaat naa la nga ni da ngay dem boole ji Ousmane Sonko kilifa diine yi yaa ñàkk jom kilifa diine yi ñi nga tuddee kilifa diine ñooñu bi Macky Sall di dem naan je suis Charlie ñoo ngi fi woon teewul dañ koo dalal di ko sant di ko gërëm bi Macky Sall di buum askan bi ñooñu ñoo ngi fi woon lu tax demoo woon boole ji ko Macky Sall bi muy dem naan je suis Sarli ñu caricaturé yonante bi sallallahu alayhi wa sallam caricaturé Serigne Touba Macky Sall dem ànd ak ñoom comme kilifa diine yow moom du ñu yëg li xew il faut ñu ñëw boole ji leen lu tax demoo woon boole ji kilifa diine yi Macky Sall tolérance bi ngay naan bi ngeen tax ngeen jël ko moo Ousmane Sonko bi utiliser tolérance yow yaa fi toléré yaa fi njëkk a toléré góor jigéen yow yaa ne Wally ti setu góor jigéen la sol yow yaa dem ba këram toloo rek ko ne nañ ko baal jéggalu na dem ba këram def fa conférence de presse te ñun ñii ñëpp kenn ku ne suñu koñ am na ko fa xam góor jigéen te da nga ko tolore di dund ak moom wala ki nga jàpp ni góor jigéen la ñun ñii ñëpp muy man muy ku mën a doon xam nga koo xam ne sa koñ dañ koy tuumaal loolu di góor jigéen ñun ñi ñëpp xam nañ kuñ naan mañan kese xam nañ ne góor jigéen la da ngeen mës a gégg mañan kese ñu laal ko fi puso xanaa boo deewee lañ naan duñ ko suul fii duñ ko suul fee mais feeg yaa ngi dund nekk sa góor jigéen di ko dund sénégalais yi amuñu ak yow problème wallahi kon li Ousmane Sonko wax ñun sénégalais àdduna bi yëpp xam nañu ko légui nak kilifa diiné yoy ngay dem na da ngay bolé ji ñoñu biñuy ray askan bi lutax demulo bolé ji né Macky Sall kilifa diiné kat mu ngi ray askan bi bu dee ay kilifa diiné la yow mi nga né da ngay bolé ji kilifa diiné ñoñu ño signé kilifa diiné lajal laajal ababakar mbou ñun waa ensemble jikko yi dafa wër ci kilifa ñoñu ko tuddé kilifa diiné bi ñu demee ñoom ñëpp ñëw signé kilifa diine yëpp Macky Sall ñëw ak ay député ne leen li ngeen signé duñ ko def kon mbirum góor jigéen kilifa diine yi ci boppam jaralu leen dara ñu nga tuddee euh, kilifa diine bu li mu jaral Ousmane Sonko ba mu jàkkaarloog tubaab yi di leen ko wax su leen ko jaraloon Macky Sall euh, voté loi bi ndax Macky Sall day ñëw ci ñoom ñu di ko sant di ko gërëm kilifa diine nag bi taxaw naan Amadou Ba mooy futur président soo demee ci moom naan ko di ko wax ci Ousmane lu ñaaw kooku mënu laa amul lum la mën a wax parce que bu kooku doyul seede bukki bukki doyuma seede ci béy bu feebar ki jàkkaarloo kilifa ki ngay wax kilifa diine jàkkaarloo Macky Sall ne ko yow yaa yor réew mi ci jàmm yor nga réew mi ci jàmm jàmm nga fi def jàmm nga fi wax jamono boobu Macky Sall nga rey askan bi tëj askan bi kooku boo demee ci moom di ko boole Ousmane Sonko yi xaaruñ ci résultat kon dama bëgg nga xam ne Mame Makhtar Gueye yow naa fekk nga yàgg képp ku mel ni yow te dama la ko yàgg wax naa fekk nga kilifa diine yooyu ngay wax suñu taxawoon seen taxawaay bu mu war billahi wallahi wa tallahi ñun duñu ñëw di fi fekk goor jigen ba diko xex waaw suñu taxawon seen taxaway bu war duñu ñëw di fi fekk code de la famille boo xam doom yi jigen ñuy dem bi ciagatu ji suñ sen seen bu war réew mi ni mu mel ci ñaawteef ak ci teef ak ci bon-bon ñun duñ ko fi fekk ba diko xex xeex jeunesse bii ngeen di saga ak khas mu and ko Ousmane songu liñu xex ci digënté bi su ngeen ko tay ñun duñ fi fekk mbon gi ñu fekk may leen nit ñi jàmm Ousmane Sonko moo leen gën gën seen nday gën seen baay billahi wallahi wa tallahi léegi nag ma ñëw fi may daanelee ci waa ji ndaw tuuma moom nangu na ni nangu na ni ay tuuma man dafa xamul moowu tuuma lu muy tekki man dama jàpp ni xëy na moom dafa xamul lan mooy tuuma Ousmane Sonko tuumaal nañ ko si lii tuumaal nañ ko si moom moo koy wax de Adji Sarr tuumaal na ko Bah Diakhaté tuumaal na ko ah tuumaal nañ ko ci lii mais tuuma alalu gor la yow mi jaam yow mi tekkiwul dara xëy na kenn du la tuumaal nattu alalu jullit la ku tu tuuma tuuma yi doon teg yonant yi yow teg Ousmane Sonko léegi nga taxaw naan ma Ousmane Sonko dañ koo tuumaal dañ koo tuumaal ba pare tuuma yooyu tuuma mooy loo xam dañ koo wax amul preuve léegi nga ñëw nga ni nitu diine nga nga toog di relater tuuma yooyu di ko tegaat ci kaw deru nit yow yaay dooma xaram yow yaa yées yow yaa bon léegi nag ma ñëw du ma ñëw sax ci ay aji saar parce que waxi aji saar moom yaa ko dese yow doomu xaraam bi nga xam ne yow yow doomu xaraam nga aji saar ñam àndaloo ay aadamoo ñoo toog taxaw waxaat carrément justice bi nga xam ne moo ko taqaloon loolu moom waxi aji saar ku koy wax doomu xaraam nit ku yées parce que aji saar moom ñëpp xam nañ ni moom da doon tuumaalaate da doon fen loolu moom dafa leer léegi mu ñëw man nag fi mu ñëwee encore une fois wax ay penalty yu mag ah Ousmane Sonko ku bëgg a xas il faut nga xasaale ñeneen te doo ko yëg nee na fii ñu nekk tugal réewum tugal muy France muy ay axlul fasi xuuna lañ maanaam ay réew faasi xuuna lañ réewu kàccoor yi maanaam man fii ma nekk États-Unis France bitim réew daal ay réewum kàccoor la léegi Ousmane Sonko maanaam day jëflanteeg réewum kàccoor yi réewum kàccoor bi ngay wax. ñooñu nga tuddee kilifa diine ak seen kilifa yooyu noonu suñu feebaree réewu kàccoor yi lañuy ñëw ñu faj leen ba ñu wér ñu delluwaat ñi deewee am na ñoo xam ne fii lañ deewee ñu indi seen néew senegal te réewum kàccoor bii ngay wax ni kenn dafa taxaw fii gisuguma ko fii taxaw naan may yàlla te Sénégal boobu dañ fay taxaw naan may yàlla te yàlla nee na li ma dul baale bokkaale góor jigéen li muy yées yées bokkaale ko gën a bon Sénégal amul jikko bu moo tax bu gisee waa ànd sàmm jikko ak Jamra di xeex kese kese kese góor jigéen dama xam ne ñii loo rien compris ay nit di taxaw di jël place yu yonante bi sallallahu alayhi di saaga yàlla di saaga yonante bi Ahmed Cissé taxaw na fi ne yàlla day taaxuraan ngeen baal ma ci baat bi loolu moo gën a yées góor jigéen kon Sénégal amul benn jikko bu bon bu fa amul amul ci jikko yi yàlla bañ billaahi wallahi watallaahi Sénégal moom bu ma déggee ñu naan tubaab bi dañ fay ñëw pour yàqu tubaab yi dañ ñoo fekk ñu yàqu billaahi wallahi watallaahi parce que li yàlla gën a bañ ñun Sénégal loolu la ñuy def muy bokkaale yàlla jël yàlla teg fa nit li yàlla gën a bañ la ñuy def it mooy jël ay tuuma yu ñaaw ay kàddu yu ñaaw teg ko ay gor tubaab yi defuñu loolu ils n'ont pas le temps tubaab yi nii amuñu temps boobu comme temps bi nga am toog wax ba jub amul benn preuve boo teg ci taaba bi ci li ngay wax ci deru nit ki te loolu noonu mën na koo topp jusqu'à éternité te loolu yow boo duggee sa biir bàmmel fan nga jëm ak kàddu yu ñaaw yi nga teg ci kaw deru Ousmane Sonko bi tubaab bi amuñu jot boobu axlul faasi xuuna bii nga wax moom la fii nii ñooñu ngay wax ñuy ay kilifa di mbubboo diine yéen ñooñu ku fi amul ay taalibe say doom a ngi fii di ut wërsëg di la ko indi ngay lekk fii bii su ngeen feebaree fii ngeen di ñëw axlul faasixuuna ñu faj leen newaat na it day xas Ousmane Sonko ba tey nee na Ousmane Sonko li tax muy ñëw euh, li tax euh, njiit bu nekk maanaam li tax mu ñuy imposer góor jigéen yi parce askan wu nekk seen njiit na mu mel maanaam seen seen njiit la muy woote woo ñoon moom la ñuy moom la moom la ñuy doon maanaam maanaam Ousmane Sonko dafa xam ni moom su doonee góor jigéen di jëflante góor jigéen yi yàgg-yàgg askan wi dañ koy topp ñun góor jigéen la ñuy doon kon loolu mu ngi bëgg wax ni kon ñun boo bëggee boo loolu kon Senghor bi mu fi nekkee nekk président nekk leneen loo xam ne du jullit kon as kon mag ñi yëpp dañoo toppoon Senghor si ñàkk ñàkk a nekk mag ñi biñ fi nekkee tubaab bi nekk fi tubaab bi nekk fi nekk leneen kon mag ñëpp dañoo topp tubaab bi ci li nga xam ne parce que yooyu yaa ne moom xooma ndaw def duulkat boobu feñkat bi nit ku yées kooku ah ku bon nee na ñun njiit yi nga xamante ni ñoom la ñu dan suñuy kilifa li ñu doon ñun moom la ñuy doon kon suñu mag ñi tubaab yi bi ñu fi nekkee ñoom la tubaab yi doonoon lañ doonoon Senghor ba ñu fi nekkee ñàkk a nekk jullit kon ñi fi nekkoon ak moom kon loolu lañ doonoon ak moom yaa yées yaa bon yaa ñàkk argument léegi nag lii ngeen bëgg ñu bàyyi leen ñu bàyyi lii ngeen bëgg ñu bàyyi ñuy teg ci kaw gor si lu ñaaw yi di ko teg te ñu ko koy teg tekki wuñu dara te ko koy teg tekki ñu dara léegi ngeen ne ñun dañuy toog seetaan ngeen di yëkkati kàddu yu suufe yu tekkiwul dara yi di ko teg ci kaw ak der ak gor ay gor ku mel ni Ousmane Sonko li mu tekki ci réew mi ak li mu li mu taxaw wax ko fierté àdduna yéen dooma xaraam yi ngeen taxaw ngeen baal ma ngeen taxaw mais di ko wax lu ñaaw lu tol nii léegi ngeen ne ñun dañ leen di bàyyi ngeen di wax Ousmane Sonko lu ñaaw li ñun ñu toog di leen seetaan xam ngeen ni da ngeen da xam ngeen ni waxoo leen dëgg kon axlul xuuna boobu ñooñu nga tuddee kilifa diine ñooñu nga tuddee ni dañoo baax seenoo gore ñooy jiitu àjjana fii lañuy ñëw ñu di leen faj waa axlul faasixuuna bii tooguñu di yàq deru seeni moroomu gor waa axlul faasixuuna bii tooguñu di duul di wax lu ñaaw di mbubboo diine te doo indi benn preuve axlul xuuna bi raw nañ leen bu yàgg balaa may dee ñuy xas tubaab man loolu moo ma gën a metti balaa may dee sénégalais di xas tubaab bi te lépp lu ñu baax le tubaab yee leen ko defaral lépp lu ñu baax le même si seen wàllu diine micro boobu ñu naan ëf soo ko nodd tubaab bee ko defar avion bi ngeen naan caaw di dem màkk dañ doon wax alaaji daa alaaji sëñ sëñ alaaji Malick dafa dox ba ba màkk tubaab bi ñoo leen tàqaleeg dox ba màkk yuuxu dina jóg fuñ ko foogeewul billahi wallahi wa tallahi gis nga bépp jaamu yàlla bu ngeen jaamu yàlla na ngeen xam ne tubaab bi am nañ ci pourcentage ba ci saal boobu nga toog euh, li tax nga mën a toog sa garambu bu jasneer tegale ba mel ni suppeme kilim boobu di ëpp tubaab yee ko defar soo deewee morgue bi ñu lay dugal kilim ba fa nekk di la téye nëpp tubaab yee ko defar wala réfrigérateur ndax xam naa ne yow congélateur moo lay téye nëpp ndax ku yées nga dee moo lay tere booy di exploser di nëpp yaa bon man balaa may dee ñuy ñuy discriminer tubaab yi di xas tubaab yi man loolu moo ma gën a métti te yi billahi wallahi wa tallahi ñoo leen gën jikko fuuf man mi nekk ak ñoom fii xam naa ci tuuti billahi wallahi wa tallahi quatre-vingt-dix pour cent Sénégal li ma gis fii ci tubaab yi ci seen jikko yu rafet ak respecté doomu aadama ak maandute ak maanaam yëwén ak fonk kàddu fonk heure ah jikko yi ma fi gis valeur yi ma fi gis gisuma ko Sénégal billahi wallahi wa tallahi ba ci seeni njiit yi yéen ngeen di woote baax di woote woo lislaam di woote woo diine yéenay saaga yàlla yéenay bokkaale yàlla yéenay saaga seeni moroomu gor yéenay falsifié ay alxuraan ngir bëgg lu leen neex xool ko ay ay alxuraanu yàlla la doon falsifié ngir tuumaal Ousmane Sonko yow yaa bon yow yaa yées yow yaa tuuti yow yaay dooma xaraam c'est ça le mot yaay dooma xaraam ñu yées ngeen ñu bon ngeen ñu tuuti ngeen mais billahi intérêt yi ngeen ni défendre lum leen jaral ñun défendre intérêt Sénégal jaral nañu lu ko raw Ousmane Sonko ak Diomaye ñun ñoko fa ño leen fal su doon seeni sago ak seen kilifa yoy ngeen ni wax tay ji li fi nekk du fi nekk ngeen ni dul ki naan damay dem boole ji Ousmane Sonko te li fi xew yëpp muso dem boole ji te li fi xew yëpp ci kanamu ñew ñu ngeen di woyé kilifa ci fi la fi xewé Makhtar gay ki di ñëwaat di duul naan ay Ousmane Sonko góor jigéen laak di wax bay wax waxu aji saar naan ma ay naan ay axlul faasixuuna te axlul faasixuuna bii ngeen di wax muy Europe seen i doom yi fii la ñuy ñëw tedd fi indil leen ngeen lekk seen taalibe yi ñëw fi tedd fi indil leen ngeen lekk su ngeen feebaree ñu jang-jangee indi ñu faj leen indi ay góor jigéen tiim leen di leen faj yéen da ngeen a xam seen sëriñ bu ñëwee fii di faju gi ñan ñoo leen di tiim di leen faj xeex bi Ousmane Sonko xeex dëgg ak jubal ak xeex ko góor jigéen su ko mag ñooñu ngeen di wax xeexoon laala mu jaral leen ko billaay wallaay tallaay heure bi duñu egsi fii yow nga signature kese nga def Macky Sall mennum Macky Sall moo taxaw ne leen seen loi bi du fi jàll kii jàkkaarloog bàyyu Macky Sall yi ne leen loi bi ngeen di wax fii góor jigéen du fi am ngeen di wër di duul yen a réew fii ngeen ñi ngeen di tuddee kilifa dañoo signé jox Macky Sall Macky Sall député Macky ay Abdou Mbow ay Abdou Mbow bu gàtt ñoo dégagé liste bi ne leen fii kenn du fi lijjantiwuñ leen dem leen taxawu fële góor jigéen kenn du ko criminaliser Ousmane Sonko taxaw wax la mu waxoon deux mille vingt deux ca ca Walfadjri ñëwaat taxawaat confirmer ko ci kanamu Mélenchon soulever débat bi wax lu leer góor jigéen ñëpp mer fa accidentaux yëpp mer yéen ngeen di wër di duur maam Makhtar Gueye nag fi may daanelee mooy xoolal lan moo tax yaa góor jigéen yi ngeen ànd mer tey te bu góor jigéen yi musa da nga neew góor jigéen yi ngay xeex buñ musaana mer nga kontaan buñ musaana kontaan nga mer tey nag yaa ak ñoom a ànd mer yow yaa changé wala góor jigéen yaa changé te xam naa ne yow yaa changé ndax doomu xaraam nga comme am ñaari junni yoo maye mel ko la ne jaa ngeen jëf